kii dafa dem porte plainte le 3 la dem section recherche porter plainte le 2 la fa Ousmane Sonko mujjee maasewu démb Ousmane Sonko mu ngi naan euh, propriété salon mu ngi naan bi fa Ousmane Sonko jógee dégg na ay nit di wax euh, voilà je je peux pas reprendre euh, <laughs> dégg na ay nit di wax naan ay nit euh, di di mu dégg na fii bi di wax ak ak ak nit kooku naan est-ce que euh, am nga ndox bi des comme ça propriétaire salon bi moom moo wax loolu moom dafa bëggoon accréditer la la la thèse du du du du du complot muy benn la fii laa le 3 la dem porter plainte la fille là entendre nañ ko euh, trois fois. laquelle euh, la fille la Adji Sarr la. Mm. entendre selon les sources judiciaires entendre nañ ko. benn yoon policière euh, bu entendre nañ ko benn yoon moom kese. ci la ñëw def audition porter plainte ne euh, viol répété ne le dernier le dernier acte sexuel c'était le le le deux entendre nañ ko avec la propiétaire du salon entendre nañ ko avec une fille boo xam ne collègue la Euh, ñoom ñu nekkoon foofu euh, di di di liggéey ensemble euh, la fille là a dit au a dit que moom daal ñoom def nañu massage mais après moom dafa génn dem lan moo fa xew moom xamu ko donc yow nga ne c'est Ousmane Sonko xamul fii boobu amul aucun rapport avec cette fille mais lu tax fii bi tëb tëb rek kii ko dafa mel ni ci biir salon bi y avait deux filles. waaw ñoo fa doon liggéey. mais lan moo war a tax c'est-à-dire moi je veux comprendre lan moo war a tax euh, c'est quoi le processus et puis nan ngay déggee nit di wax non déglu ma c'est quoi le processus ba fii bi ñëw di ko accuser amul processus lu dul ñëw nga fi nga tàmm di mancé woo depuis six mois nga mancé wu comme d'habitude parce que passé nga journée di bind sa livre toogaay bi yàgg nga jóg sentir ni que ça va pas du tout nga dem fi nga xam te ne foofu mu ngay soulager sa douleur comme nga dindi sa o parce que mosoo fa sumi sa tubéy jamais ñu maase la nga fay sa xaalis dem sa yoon et tu tranquillement yow may mun déglu ma mhm. xel nangu na Ousmane Sonko l'homme le plus honni du régime koo xamante ne député yi dem def nañ fi seen kabal def seen commission d'enquête parlementaire uniquement pour faagaagal ko koo xamante ne raje nañ ko pour toroxal ko koo xamante ne façon ndiggu saraxal bu nekk def nañ ko ko imagine nga benn yoon rek waxuma la sax euh, viol benn yoon rek mais viol répété avec menace d'arme parce que bu ñu la menacé arme may mun a ba waa ji jëlaat armam dem menace bi jeex na ah boobu mën nga dem police pourquoi attendre autant de temps benn fii bi dans sa plainte nee na bind na envoyé na message ne maa ngi ñëw cest dire le violeur récidiviste ñëw ne victime am bu fragile comme tu l'as décrit bu mu violé plusieurs fois avant. non ne à vingt ans on peut être fragile. je connais pas la fille. non non non yow yaa ne à vingt ans on est fragile. à vingt ans. donc yow kon elle a vingt ans donc elle est fragile. non non non ma ne à vingt ans on peut être une fille fragile. Ah,